lan mooy seen soxla lan mooy seen jafe-jafe ñu ànd xalaat ak euh, xalaat ak ñoom seet nan la ñu mën saafara seen i jafe-jafe loolu moo fi indi bi ñu déggee ni CNTS day marche ma bind lettre moo di dama bëgg ñëw ak suma groupe seet si la su ma seet si la dañ wax ñu lan mooy seen soxla wax nañ lan seen soxla waxin wu leer ñi si ëpp mooy.

ci biir groupe bi nag ku mu neex ëllëg nga dem ak ñoom waaye li nu secrétaire général wax mooy fii parti yëpp a fi nekk CNTS nekkul fi benn parti euh, moom Diop Decroix nee na euh, man parti de gauche la parti de gauche dafa yàgg marché ak travailleurs ak ku mu mën doon aussi man na dem jàpp si seen marché mais ñun lépp solo mooy ñoom ànd nañu seen marché bi ñu ñu leen di jàppale seen revendication te lu nu man pour jot jotali ko assemblée nationale si suñuy pexe yoo xam ni daanu fexe ba gouvernement bi dégg seen revendication daan si taxaw incha allah sunu xiyal